waaye bokk na ca lañuy feeñal ci seeni mbind ci kaw du bokk ak li nga xam ne moo nekk ci seeni xol loolu nag dana dox diggante nit ki ak boroomam ëllëg ngir mu war koo layo ak boroomam tabaraka wa taala kon nit ki saa yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo dénk na sàmm ndénkaan loolu moo tax mu war a bàyyi xel sàmm li nga xam ne moo di ndono loo xam ne nit ki dañ ko koo bàyyeel te xam ne du mujj ci moom da koy sàmm ba jeexal keneen ñëw sàmm ko kon saa ko nit kii dee yor rek na ko sàmm ci anam boo xam ne moom mooy anam bu rafet bi lu moo tax suñu borom tabaraka wa taala dénkaane euh, ñu sàmm kóllëre googu ci anam boo xam anam bu rafet la waaye ñàkk ngaa sàmm itam ñàkk koo kóolu kóolu kóolu gi nga xam ne moom lañ amoon ci moom mu ñàkk sàmm itam loolu borom bi tabaraka wa taala dig na ci aw nit ëllëg ngeen di leen bugal ci ñi nga xam ne dañoo bàyyi woon àq yi nga xam ne moom lañ waroon a sàmm ci seen i diggante bokk na ci kóolute googu mooy saa yoo xamee nit ki euh, borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moo ko gaaral ne kóolute googu mu yanu ne attan na ko saa yu demee ba nga xam ne mi ngi jëflante ak nit ñi na fexe ba jëflante ba nekk jëflante boo xam ne bu rafet lay doon su fekkee lu ñuy attee la loo xam ne dañ koy waxtaane ba tënk ko ci ay kayit wala ñu waxtaane ko ba ba nga xam ne leer na day war ci nit ki kon mu sàmm loola ci di xool mbind mooma nga xam ne moom la dëlante woon ak ay mbokkam ngir mu sàmm ko sàmm boo xam ne sàmm bu rafet lay doon saa yu demee xam ne mënu ko mu delloo ko moo tax borom bi tabaraka wa waxoon ne kon ñi nga xam ne jamono ngi ñëw joo xam ne ca kanam danañu am aw nit ñoo xam ne danañu jóg ne mën nañoo yor mbir waaye fekk itam duñu ko yor ci ni leen ko ni leen ko joxe te neewoon na itam moom yonente bi alayhi salatu wasalaam jamono ngi ñëw ci kanam joo xam ne nit dana laaj dara ñu jox ko ko ta fekk yooyu ko ta fekk yooyu mbir moom waaye nee na woon moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ne jamono ngi ñëw nit dana laaj mbir ba noppi ñu jox ko ko mu di ca jalgati di ca wor loolu yëpp bokk na ci yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam daf koo tuddoon ne bu ñëwee ba mujjug jamono des na ko gis waaye bokkoon na ci yim tuddoon itam mu ne woon jamono ngi ñëw joo xam ne danañ jël melni mbir jox ko nit te yoyou ko wër mënu koo yor loolu nag léeg-léeg mu dem ba dal njiital réew nga xam ne léeg-léeg danañ ko jox mbir moo xam ne dañuy wóor ne ko ñi kii kat lii ñu ko jox du ko attan mënu koo yor ba noppi mu nekk ca loolu itam daa bokk ci yi nga xam ne bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon nit dana laaj ñu jox ko te fekk loola du ko mën a du mën a yor kon loolu bokk na ci ndénkaane yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax borom bi tabaraka wa taala ne woon inna allaha la yuxayiru ma bi qawmin hatta yuxayiru ma bi anfusihim ñoom ñi ngi wëlbatiku di soppeeku rek borom bi tabaraka wa taala di leen di leen di leen wëlbati kon bokk na ci yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te xam ne kóllëre daa bokk ci yi nga xam ne borom bi tabaaraka ko taala daf koy laaj moo xam kóllëre gi dox sa diggante sa borom la ci mbooleem jaamu yàlla yi nga xam ne moom la la yàlla sant yàlla daf la koy laaj bu dee amaana bi nga xam ne moom nga tënkanteeg say nit ci mit loolu itam na nga wóor ne loolu borom bi tabaaraka wa taala moo xam jaar na yoon wala jaar bi yoon borom bi tabaaraka wa taala daf la koy laaj loolu nag képp koo xam ne yaa ngi xam li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala sant da nga bàyyi xel ne boo jiitee ak lo meuna jité da nga jaar ak mom ci ni borom bi tabaraka wa taala santane ci anam prophète su fekke nak dam nga ba nga xamne ne yor loolu itam nga bàyyi xel na ah, ndigalal borom bi wa taala kat moy bu fekke dañ la denk na nga delo lañ la ci anam prophète yenen tabi alayhi salatu wassalam neene nu wax nañ ne sa yo xamne mat nga ko denk la ko denk sa yo ko soxla da jox ci anam prophète te loolee nga ko joxoon itam moom lay delloowaat loolu mooy ak kóolute moo tax borom bi tabaraka wa taala ruuxul amin ala xalbik kon bokk na ci sàmm ndénkaan e, di loo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koo sant santaane ab ci ab jullit waaye bokk na ci itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee ne e, jamono ngi ñëw joo xam ne itam nit ñi ci boppam danañ dem ba li nga xam ne moo di ak dëgg itam duñ ko du leen yitteel waaye xool jamono day dem ba day tollu foofu ndax léeg-léeg ñi nga xam ne dañuy woote woo ci ak dëgg di wax nit ñi ci ak dëgg day dem ba jamono dëgg googu da leen di réer waaye léeg-léeg itam nga gis koo xam ne itam ci aw nitam dañ koy dañ koy jay wala dañ koy dugal di ko ay kàddu yoo xam ne xëy na am maa loola mën na koo toppa bu ko toppee mu nekk jafe-jafe boo xam ne bu réeree lay doon ba xattaa jafe-jafe boobu mën naa rot ba dal ci ñoo xam ne sax seen yoon du nekk kon képp koo xam ne danga jiite ak loo mën a jiite ñi lay dar itam wares na laa wax li nga xam ne moo di ak dëgg gu mat sëkk te ña ña jiite itam dëgg gi ñu leen di wax itam ñu bàyyi xel ne dañ leen fay teg ngir ñu war a woo li nga xam ne moom la nit ñi bëgg ñu war caa jaar saa yu demee ba tële ca loolu nag mu waxtaanaat ci biiram ak ña ngi ko seqal delloowaat ko ci anam boo xam ne anam bu rafet lay doon kon kóllëre googu saa yu ko nit ki sàmmee na xam ne sàmm na lam waxoon ci digganteem ak boroomam sa yu nit ki jalgatee lolu lam waxon ci digganteem ak boromam daf ko jalgati ta jalgati gogu kat dana waral ëllëg mbogul borom bi tabaraka wa taala ci ñi nga xam yalla daf leena santone ñu bañ ndax yalla ñi nga xam kat da leena santone ay ndigalam ñu lank ko ëllëg yowmal qiyam ñoña dinaa leen mbugal mbugal mu tar waaye ñi nga xam dama leena santone ñu def dinaa leen fayé ay xéewal ci aljanna lolu bokk na ci kon ab julit sa yo xamé dañ ko jital wala sa yo xamé mi ngi ak nit mu sàmm ca loola nga xam ne mooy ndénkaan sàmm sàmm bu rafet amaana googu itam moo war a dox ci ki nga xam ne day liggéey ak liggéey bu mën a doon moo xam daa jiite am réew moo xam itam dañ koo jox ci biir réew mi poste boo xam ne moo ca jiite ak bu mën a doon moo xam ministère bu aju ci wàllum jàng la moo xam ministère bu aju ci wàllum faj la ak yu mën a doon na sàmm amaana googu nga xam ne moom lañ ko tege ci kanamam saa yoo xamee ne nag dem na ba nga xamee ne loolu kat mënu koo yor mu bàyyiwaat xel bu baax a baax te xam ne kon mënatut nekkut koo xam ne mën naa jàllale dénkaan loolu nga xam ne dañ ko ko dénk te borom bi tabaaraka wa taala nee àdduna képp koo xam ne da nga fee yor dara dañ la ko jox te dañ koy nocc ndax jëmmi ndénkaan ci boppam daa nekk loo xam ne du sax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na woon ndénkaan kat suñ borom tabaaraka wa taala daf koy dénkaane waaye saa yu saa yu ko suñ borom soxlaa nag kenn waru caa dégg sa baat loolu bokkoon na ci waxi Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na woon dénkaan day ah, suñ borom day dénkaane rek waaye saa yu suñ borom soxlaa ba jël itam kenn waru caa dégg sa baat kon ndénkaan ci boppam nit ki da caa war a am ndénkaan sàmm ko sàmm boo xam ne sàmm bu rafet lay doon saa yu nit ki dee jëflanteeg aw nitam ci aw liggéey ab liggéey bu mën a doon mu fexe ba la ñuy tënkante lépp na nekk lu wér te itam saa yu nekkee lu wér itam na fexe ba defal ko loolu nga xam ne moom la bëgg ndax jamono toll na foo xam ne te léegi maanaam ñàkk sàmm amaana googu dana tax ñu baree baree bari seen i alal mi ngi tasaaroo ci biti ngir ñàkk ñi nga xam ne moom lañ koy ñàkk am amaana ci ñi ñu seqal léeg-léeg nga jël alal ju baree baree bari jox ko nit mu woote woo ne lii nga may defloo mën naa ko ba noppi mu jox la alal ja nga lekk ko te doo ko liggéeyal loolu loolu nag ci ñàkk amaana ci la bokk ndax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na woon jamono ngi ñëw joo xam ne nit ñi ci seen biir kenn dootul amati kóolute ci seen biir te foofu la jamono toll ndax dañuy jàpp ne képp koy jëflanteel rek moom day fexe ba jaar ci sa kaw jàll lekk sa alal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu